match bi ñu doon joué ak Roumain yi xawoon na metti tuuti parce que ñom ñoo ñu maîtrise technique donc football bi bokoy def nga am maîtrise technique lool moñu ñu xaw a sonal tuuti et puis euh, bo gisee ñu doon def jeu long bi parce que amuñu joueur ya nga xamné mën mun nañu def sortie de ballon bi donc euh, chaque fois suñu góol day jouer ak Fadel bu jouer ak Fadel day téye ballon bi pour milieu bi avancer touti défense bi avancer touti donc lool moñu ci xaw a dañu dem ba Fadel dafa xaw sonn touti

dina xaw a am changement tuuti quoi. donc amuñu woon temps temps d'entraînement. parce que boo jouer chaque match da ngay jouer tey jouer suba jouer tey jouer suba donc doo am temps pour rectifier lu bari bari.